salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaam yi Sen Sport 221 dañu koy door rek suñu gayndee U20 yi gannaaw bi ñu gañee kan bi ba ñibbisi tey jii ci réew mi ñu daal di leen tertu voilà dal dinañ leen dalal foofu la ca pale ba ki nga xam ne mooy njiiti réew mi dal leen dàmp comme ni ma ko doon defee ñi nga xam ne ñoo jiitu woon gannaaw bi ñu ko defee ñi nga xamante ñoo di dégg maam équipe A bi ñu gañee kan bi defal ko bi soccer bi defal ko tam ñu jógee woon ci CHAN bi tey jii ñi nga xamante ne ñoo di gone yi am ñaar fukki at jëm leen jox seen ndàmpaay ku nekk ñoom joueur yi koo xam ne yaa ngi ci délégation officielle bi dal dinañ leen dampé lu toll ci fukki million voilà ci suñu xaalis loolu nek lu am solo ndax comme li gars di wax ku def lu reuy am lu reuy voilà na kub yi rek na kub yi ñëw saa yu kub yi ñëwee rek ñu dàmp leen lii dafa yok li nga xamante moy motivation yeneen équipe yi nga xamné war nañu dem bokk na ci e 23 bi nga xamné ñom ñu ngi ci di lii di éliminatoire yi ak e 17 bi nga xamante ñom seen kan daanaka yegsi na voilà amana ñom itam ñu jaar fi gars jaar ngir ñu wara mëna mos ci ndàmpaay ñom itam ndax kat li nek na lu am solo way voilà kon ku nek fukki million lañ la dal di jox ci li nga xamante ni mooy dégg maam euh, coupe boobu nga xam ne daal dinañ koy teewal fii ci réew mi ci ngoonu tey jile gannaaw loolu équipe nationale A waxoon nañu leen fi ci bëccëg ne dañuy war football voilà ci li nga xamante mooy 24 bii di nag dina ko ay coppite yoo xam xam ne waaye mu am ci ñoo xamante dañoo am ay blessure voilà kon ku ci mel ni Cheikhou Kouyaté xam ngeen moom depuis ci mondial ba ba léegi footballagul donte ne tane fan yi mu ngi commencé entraînement yi Abdou Diallo waxoon nañu leen ko fi moom itam mu ngi ci dégg am gaañu gaañu ba tey ji wéragul bu dee Nicolas Jackson mu ngi soog am retouram moom sax joué gul li nga xamante mooy full euh, game man nañu wax ne ay minutes la koy mosal Bamba Dieng changé na club moom itam demoon yi mu ngi football ak clubam Habib Diallo gis nañu ne moom itam demul woon ci coupe monde bi Cissé woowu ko woon même match yi ñu doon waajal sax woowu ko woon moom itam ñu gis ne jamono bi moo nekk ki gën a dégg ci suñu attaquant moo ci ëpp lu mu dugal voilà moo ci gën nekk en te Aliou Cissé amul benn lay bu dee woowul kii di Habib Diallo loolu moom na leer ci ñëpp ndax kat changé wul voilà amana buñu ko topé dina di nga maam gudd lool bari na ñoo xamante ni daal jamono yi nekkuñ di football ak seeni club budé ki nga xamanteni nak modi di Moussa Niakhaté Moussa Niakhaté xam ngeen ne moom convocation waaye gis ngeen bo ba légui won ba wara mëna football gis nañ ci weekend bi wésu rek mu ngi won ci dégg nga maam euh, ban bi ci match bi nga Nottingham Forest ko don amal way jouégul ben minute amana moom itam jortu nañu na dina wuute liste bi kon ay ciopété mënu ci ñak budé suñu gardien bi di Edouard Mendy xam ngeen né dafa am blessure voilà moom itam dafa amon damo damu ci baram bi booba léegi moom it ségu deful kon coppite moom yu sakkan dina ci am ñu ngi koy séntu bokk waaye daal nañu fexe ba bu ñuy indi ñu indi ñeneen ñoo xamante ni daal dinañu feesee place yooyu lee voilà war nañu Aliou Cissé war na yeew xam naa ne jàngat na ci li fi jote xew ñu bàyyi di woo yoo xam dañ leen di woo rek ngir teg leen ci banc bi ngir matal ab liste nañu woo yu xarañ yu compétitif comme ni ko France di defee ak yeneen dëkk yi nga xam ne léeg-léeg sax ñu am match yoo nek lu am solo te ñu ngi sentu lool ci Aliou Cissé ndax gis nañu ne compétition bi di kan mu ngi ñew te amna na lu bari lo xamne ne nañu ko ci mondial bi wessu motax ñu ngi sentu ay tour yu bes amana ñu gis ku ci melni ni Diaw bi nga xamne mom dafa nek en forme depuis ñu door saison bi ba légui mu ngi toj Clermont donte ne wowon nañu ko fi amul won li nga xamantene ne chance ngir football gis nañu ne suñu gardien yi jamono bi man nañ wax na ñett ñi ñu ñi doon wo seen jeen rek lañ ci mëna wax ko xamantene ne mu ngi jouer régulièrement ak Alfred Gomes changé na club bu yagul voilà kon Mouri Diaw amana dina am chance moom itam waa am beneen franco sénégalais comme ni ma leen ko waxee fan yële ci ginnaaw mooy kii nga xam ne moom la ñuy wax Yehvan euh, nekk foofu la ci Reims nga xamante ni moom ay clean sheet moom da koy tegale nu mu ko neexee ay chef daf ko mën ak ki nga xam ne mooy Malick Thiaw nekk ci AC Milan nga xam ne gone gu ndaw a ndaw la voilà nekkoon Schalke 04 yàgg nañu wax ci moom ren ji AC jënd ko doon ko teg ci banc bi ñu gis ne temps yi ñu teg ko muy wane lu leer gis ngeen ko ci match yi mu ci série A bi ak ñi nga xamante ñoo di euh, Tottenham contre Tottenham ci Ligue des Champions ba aller bi ak retour yëpp mu dal di dëng maam takk gars yi mënuñoo am dara voilà moom kii di Malick Thiaw boobule voilà ki nga xamante mooy mooy ñëw wala kee mooy ñëw waaye dañu xam ne ay coppite wane seen bopp ak seeni club di ay xale yoo xam ne voilà njartu nañu ne ëllëg dinañu war a mën a indil Sénégal ci li nga xamante ni mooy suñu ëllëg ci wàllum football bi kon jàpp naa ne loolu yëpp xëy na li nga xamante ne ñoo di moo ki nga ne mooy Cissé ak ñi koy jàppale ci liggéey bi du jàpp du ñàkk ñu ngi doon bàyyi xel ñooñu ak ñeneen ñoo xamante ne war nañoo mën a indil Sénégal dara waaye daal dara yàggatul ci um, ajjuma bile dinañu ñëwaat incha allah bu liste bi génnee def ci jàngat donte ne li des bi bariwul dëkk bi nag toll na foo xamante ne lépp loo fi wax rek ngi am nañu joueur yoo xamante ne képp ko fi tudd ñu ne diwa ko man mën nañoo indi diw diwoo ko man koo fi te du ñu naan équipe joueurs yi ñu fi am baax na dugg na fi génn fële France ñoo ñu ëpp ay joueurs foofu waxoon naa ko fi waxati ko fi Allemagne ñoo ñu ëpp ay joueurs Espagne ñoo ñu ëpp ay joueurs te ca nekk xaaj bi yëpp bokkuñu woon sax ci squad bi nga xam ne ñoo leen doon séntu mais da ngay testé ku nekk nga mu ñëw jouer nga jox ko sansam su ko defee doodoo am benn problème boo demee ci compétition yi gis ngeen kan bi blessure voilà ñi nekkuñu en forme parce que joué wuñu ak seen club loolu yëpp nag ngir moytu ko da ngay yaatal li nga xamante mooy groupe bi su ko defee boo dëkk ma compétition doo am benn problème pour tànn ay joueurs yi nga xamante ñoo la war a mën a teewal voilà su ñi nga xam ne ñu ngi toj seen i club nekk ci forme voilà di joué nga woo ñi nga xamante nekkuñu di joué wala dañoo blessé dootoo am benn jafe ci loolu ci a loolu dañuy ñëw am benn geste bu rafet boo xam ne def nañu comme euh, weeru koor bi nga xam ne ñu ngi koy dëkkmal Chelsea football club dafay def li nga xamante ni mooy ay ndogu ci stadam boobu di Stamford Bridge voilà mu nekk loo xamante ni nee nañu mooy premier ko mos a def ci li nga xam ne mooy euh, English Premier League bi voilà te Chelsea xam ngeen équipe bu mag la loolu bu ko defee du ñàkk yeneen équipe di koy dégg maam euh, roy ci loolu voilà ci weeru koor yi ñoom Chelsea ñoo ko dal di nee nañ lii di ab xibaar bu neex la boo xam ne ñu ngi koy biral voilà muy dégg maam dañuy dalal li nga xamante ne mooy ab ndogu ci koor gi voilà ay ndogu dañu koy faral di def ci ngoon ngoon yi ci koor gi ci stade bi su ko defee ñu ne ñu ngi invité bépp ko képp koo xamante ni rek suñu dëkkandoo ga voilà nekk ab muslim képp koo xamante ni rek ab muslim nga kon ñu ngi lay invité ngay ñëw di ndogu si ci li nga xamante mooy ndogu yooyu xam ne Chelsea ñu ngi koy faral ci li nga xamante ne mooy koor gi lu rafet rafet voilà publier ñu koy def maanaam bi ñuy jéebaane li nga xamante ne mooy xibaar bi photo moom ngeen di gis noonu Kalidou Koulibaly ab photom la ñu def ci Twitter bi voilà comme xam ngeen moom ko fonk li nga xamante mooy diinaam la te comme ab jullit la nekk foofu la ci équipe boobule voilà moom moom la ñu def photom dal di bind li ñuy bind yépp dal di invité bépp képp koo xamante ne ab jullit nga ci koor gi ngir ngay dem di ndogu ji ci li nga xamante ne mooy ndogu yooyu nga xam ne ñoom Chelsea ñoo ngi koy dalal ci koor gi le gannaaw loolu Boulaye Dia moom dafa dal dugal tey ji juróom-ñeenteeli balam moom tey ji dugal na de ci match bi nga xam ne ñoo ko doon am seen diggante ak AC Milan Salernitana football ak AC dañoo match nil sax di kul ren bile Gavi Gavi moom nag jamono bile dañoo dal di dégg nga xam ne mooy contrat bu yees bi mu signé woon ak Barcelone voilà foofu la ca Espagne voilà justice bi daf ko dal di dégg maam annulé kon fi mu ne nii Gavi mën nañoo wax ne li des ci contrat bu njëkk ba képp a fi des te loolu mooy saison bii bu jeexee Gavi maanaam saison bii bu jeexee équipe yooyu doon ko ngoro képp ku ci jubóog moom mën na koo dal jot te du ci teg benn koppar dërëm du ko dal di di joxe voilà kon Gavi fi bi jeex su ko defee bu fekkente ne dafay xaatimaat beneen contrat ak Barça mu dal di koy xaatim voilà bu fekkente ne dafay changer club tam bu ko neexee mën na dem waaye contrat bi nga xam ne moom la signé woon nga xamante contrat wu jeune la boobu mooy continuer maanaam weccet yi mu doon jot boobu rek mooy continuer fi ne nii ba saison bi dal di jeex bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi Barcelone nag am nañu li nga xamante ne mooy chance ngir def li nga xam mooy appel dinañu li nga xamante mooy décision bi bu la neexee mën nañu def appel équipe foofu la ci Angleterre yi nga xamante ne ñu ngi doon ruumandaat ci ay ci suuf ne dañoo bëgg signé ku mel ni Gavi voilà loolu kon dafay jaadu ci Barça ngir ñu liggéey a baax ci boy bi ngir mu des foofule waxee fi mu ne nii mooy coach bu Stade Reims moom laa wax sànq Stade Reims mooy équipe bu nga xam ne mooy Evan Diouf Evan bi nga xamante ne mooy seen gardien bi ñoom nag jamono bi ne nañu ñu ngi ci 19 match yoo xam ne joué nañu ko te amuñu défaite loolu nag nekk loo xam ne jaloore la 9 victoire 10 match nul lañu daldi am kayti xibaar bi mu ngi xam na 9 bi kep lañu encaissé waye de ki nga xam ne mo leen di tagat di ki ñu wax Will steel bi de nee ñu amagul sax diplôme entraîneur rek diplôme sax amagul ko te jamono bi mom lañu jappone mo nekk gum sax meilleur entraîneur ci saison bi la liñu jotta gis wala ko amagul diplôme manam ko xam dañu jàpp ne xëy na am njàngam mokkagul muy def jëlor yi le ki de xam na ne bu amé diplôme mom benen affaire lañu wax kon jamono bi Stade Reims ñu ngi toj Ligue 1 bi te ki leen gita amul sax diplôme entraîneur wala gay dinañ jël ci war ak yeneen info suba inshallah dinañ wax ngeen continuer suivre Sen Sport ans the best sport in his channel.